حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات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 wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis bu ne di ànd ak yéen ci émission boobu ñu tuddee jotaayu xam-xam ñu toll ak yéen ci téerab sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu tuddee Munawwir Sudur te ñu yemoon ci suñu bind bi mujj ci bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu di leeral bàkkaar yu màgg yi nga xam ne jullit bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax baax ñu limoon ca yu xaw a takku euh, waaye ñu limoon ca cër yu ne bàkkaar yu màgg yooyee cër bu ne lamu ca jagoo ci ay bàkkaar ba ñu taxawoon ci suñu bind bu mujj bàkkaar yi nga xam ne moom la euh, pay jagoo pay jago muy njaaloo ak li nga xam ne mooy euh, jëf jëf yi euh, niti luut ña suñu bindu tey dañ koy sof fi nga xam ne foofu lañu ñu woon rek ci bunt boobu ba tey sëriñ bi di wax ne amallat yi ndaal la nga xam ne amat matale na jamial jismi mboolem yaram wi fa arbaun ñeent la xaawil nanga jéem ajalla xismi ngën gaa màggi ngën gaa màggi ay ay jagle wala ngën gaa màggi ay cër sëriñ bi wax na ne bàkkaar yi nga xam ne ñooy bàkkaar yi nga xam ne dafa daj kàpp yaram wépp nga xam ne bàkkaar yu mag yooyu saa boo ci jëfee benn bu boobaa sa yaram wépp ñoom ñoo ko jëf bàkkaar yooyu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ñeent la bi ci jiitu moo uquuqu walidaynin wal firaaru min zaxfin min jum man jumlatuhum shiraaru bi ci jiitu mooy doge sa ñaari waajur wala ñàkki teggin sa ñaari waajur wala di euh, mitiital li nga xam ne mooy sa ñaari wayjur loolu mooy xuquuqul walidayni muy di def wala di jëf wala ngay wax wax joo xam ne euh, boo ko waxee mu merloo si ñaari wayjur wala soo ko waxee mu naqari leen wala soo ko waxee loraange man cee juddoo ci ñoom moo xam loole nag ay jëf lay doon wala ay kàddu moo moo xam loole ay ay jëf lay doon wala ay wax di ay kàddu yoo xam ne danga leen koy jëmale ba loolee mën a euh, man leen a merloo wala mu mën a euh, def ci seen xool li nga xam ne moo di aw aw naqar ba tax na kon loolu muy doge sa ñaari waajur muy di leen wax wala ngay jëf-jëf joo xam ne daf leen di naqari loolu dafa bokk ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne ab jullit war na koo moytandiku waaye ab jullit war na koo daw bu baax a baax a baax baax ndax suñu borom bi subhanahu wa fonk gum fonk ñaari jur moo tax mu ne sa ñaari wayjur bu leen wax sax uuf bu wax ba pare sax nga teg ca uuf loolu li muy tikki mooy màgg goo xam ne màgg nañ ko ak dayo boo xam ne am nañ ko waaye ak cër boo xam ne am nañ ko moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu waxee ne suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal euh, ngeen war a jaam ngeen war koo jaamu te waru leen a jaamu kudut moom la mu ca teg dane na ngeen rafetal itam jëmale ci seen ñaari wayjur euh, rawatina nag su leen ak mag dabee saa bu ci ak mag dabee kenn nga xam ne ci jamono jooju day naqara deret jamono jooju day niiw kattan jamono joojee nee na lépp loo xam ne moom nga man ci yërmande lépp loo xam ne moom nga man ci wax ju baax lépp loo xam ne moom nga man ci wax ju rafet dee ko wax di leen ko jëmale waaye bul bul bul bul di euh, bul di ñaawal jëmale ci ñoom mukk bul di leen gëdd bu ñuy wax ngay soobental seeni wax waaye nanga leen jox respect bu baax a baax te nanga leen yërëm waaye euh, na nga xam ne euh, ñoom ñoo di say waay jur lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala def ci yow ci ñoom la ko jaarale moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne wa xada rabbuka alla taabudu illa iyahu wa bilwalidayni ixsaanan imma yablughanna indaka alkibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kon suñu borom subhanahu wa taala loolu lay leeral ci boobu Euh, ginnaaw bi nga xamee ne dogal na nit ki war a jaamu yàlla ba pare la la mu ca teg mooy nit ki dafa war a rafetal itam jëmale ci ay waajuram te lépp loo xam ne moo di loraange wala lépp loo xam ne moo di naqar wala lépp loo xam ne man la leen a merloo yooyu yëpp mu koy daw bañ leen koo teg mukk ndax loolu moo di ay teggin yi nga xam ne moom la nit ki di war a jëfandikoo digganteem ak euh, juróom suñu borom subhanahu wa taala di waxaati alquran ba tey ne waabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan na ngeen jaamu yàlla mi nga xam ne moo leen bind e, bind lépp loo xam ne moo nekk ci kaw suuf waaye bu ngeen koy jaamu bu leen ko bokkaale ak dara waaye bu ngeen ko jaamoo ba pare itam na ngeen di rafetal di jëmale ci seeni wayjur kon foofu li fi mën a jàngatee mooy gis nga suñu borom subhanahu wa taala ak jëmmam ju màgg ji bi nga xamee ne wax na ne na ngeen ko jaamu ba pare la nga xam ne moom la toftal ca euh, jaamu ga mooy rafetal jëmale ci waajur kon loolu li muy tegtale mooy dayo boo xam ne su suñu borom subhanahu wa taala jox na ko li nga xam ne mooy ay waajur waaye bàyyi xel goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bàyyi na ko xel ay waajur euh, te euh, doomu aadama bi war koo sàmm bu baax a baax a baax war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax muy waxaat ba tey ne wasaynal insaana bi walidayhi ihsaanan ñun day ñoo dénk doomu aadama bi euh, ci ñaari way juróom ak rafetal maanaam sant nañ doomu aadama bi muy rafetal di jëmale ci ay way juróom loolu ñun suñu borom subhanahu wa taala ñun ñoo ko sant doomu aadama bi mu war koo jëfe kon loolu lépp euh, am solo goo xam ne euh, topp ndigalul way jur am na ko solo ak am solo goo xam ne Euh, di euh, jëmale ay teggiin ci sa ñaari wayjur te bañ di leen euh, merlo wala nga leen di wax wax joo xam ne wax ju leen naqari lay doon yooyu yëpp lislaam daf koy bañ ngir lan ngir coono yi nga xam ne ay wayjur dinañ ko daj ci doom ci jamono jañ koy ja ko wayjuróom wu jigéen di tollu ab diggante ba mucc ba yor ko ci ak ngoneem mu doon ab liir mu koy e, toppatoo ba mu man dara kon loolu lépp nit ki war na koy fàttaliku ba xam ne kon way jur moom doonul loo xam ne nit ki daf ko war a sàggane wala nit ki daf ko war a e, jàppe kom ni nga xam ne noonu la jàppe lépp ngir fa nga xam ne fam la fa la ko suñu borom subhanahu wa taala teg waaye fa nga xam ne fala jaar ak moom mi nga xam ne mooy e, tuut tànk bi wala ki nga xam ne sax jaar na ci tuut tànk ba jóge fa euh, te way juróom yëpp ay way juróom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko taxaw ba fépp foo xam ne egg na fa ci àdduna wala lépp loo xam ne mën na ko ci àdduna way juróom yooyu ñoom ñoo ko taxaw woon ba mu man loolee moo tax yonent bi saa sallam di wax ne inna allah xarama aleykum xuquqal ummahaati wa wa'dal banaati wa manan wa haati wa karaha lakum xiilin wa xaal wa kasratu suaali wa idaatul maal yonente bi saa sallam ne na suñu borom subhanahu wa taala dafa araama ci yéen li nga xam ne mooy dog dogu dogoog seen ñaari wayjur dogoog seen ñaari wayjur nag bu ñu ko waxee mooy di wax di walla ngay jëf jëf joo xam ne daf leen di lor wala jëf joo xam ne daf leen di naqari wala ngay wax wax joo xam ne daf leen di euh, métti ak lépp loo xam ne mën naa indi seen mer rek loolee lu jaam bi war a moytandiku la lu doomu aadama bi war a moytandiku la kon loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a ñor ci xadiis bi donte ne yeneen yonent bi saa sallam leeral na ko ci waaye loolu mooy li nga xam ne mooy tomb euh, waxtaan wi yonent bi saa sallam di waxaat ba tey ne ala unabbiukum bi akbaril kabairi ndax duma leen xibaar bakkaar yu mag yi bakkaar yi nga xam ne ñu ci gën a gën a mag euh, mu mel ni dañ ne ko axakay mu ne al ishraaku billahi mooy bokkaale yàlla wa day walidayni ak dogoog sa ñaari wayjur wa sahaadatu yi ak seede li nga xam ne moo di ay neen kon yooyu benn baaxu ci euh, waaye euh, bokk na ci ca gën a bon kon muy dogoog sa ñaari wayjur te mooy comme ni nga xam ne noonu la ñu ko leerale léegi Euh, ñaareel ba ci ñeenti bàkkaar yooyu nga xam ne saa bu ko euh, nit defee doomu aadama bi su ko defee mu matale yaramum wépp nga xam ne bàkkaar bi day mel ni yaramam wépp ñoo ko bokk ñaareel ba mooy daw ci bisub xare mooy alfiraaru min azzaxfi mbooloo mu taxaw ngir jàmmarloo ngir aar lislaam ngir taxawal lislaam nga euh, daw génn ca mbooloo moomee te mbooloo ma nga daw génn lala lala ca dugal lala génn ca mbooloo ma du dara lu uh, uh, ragal li nga xam ne moo di noon yi waaye du dara lu uh, ngir bëgg a sa bakkan kon yooyu itam dafa doon mbir moo xam ne nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax a baax dafa dafa bokk ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne ab jullit war na ko moytu nga xam ne jamono yi nga xam ne xare daf daan am ci diggante jullit ñi ak nooni lislaam yi nga xam ne ñoom ñoo gëmut lislaam bu boobaa soo jàmmaarloo ak noon ya bu dul ne dangay ngay euh, euh, daw dangay ngay daw ngir euh, wut beneen anam gu gën a jekk gu baax goo xam ne di ca mën a jàmmaarloo ak ñoom bu boobaa moom bu fekkee da ngay daw rek ngir bëgg a rowale sa bakkan wala loolu te lislaam bëgg taxaw nit ñi di ko Euh, di xeex ngir taxawal lislaam bu boobaa loola moom daw daf daf cay daf cay arab moo tax mu ne wal firaaru ak daw min zaxfin ci euh, mbooloo moo xam ne dañoo taxaw ngir defar défendre l'islam man jumlatuhum shiraaru ñoo xam ne ñan taxaw di jàmmaarloo ak ñoom ñoom ñëpp ay kees lan maanaam nit ñu bon lan nit lan ñoo xam ne lay seen yitte rek mooy fay li nga xam ne moo di lislaam moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne yaa ayyuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru zaxfan fala tuwalluhum al adbara wa man yuwallihim yawma idin duburahu ila mutaharrifan li qitaalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa'a bi ghadabin min allahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sal masir yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla su ngeen dajee ak yéefar yi nga xam ne dañoo weddi suñu borom subhanahu wa taala dañuy bokkaale suñu borom subhanahu wa taala bu leen leen woon ginnaaw mukk maanaam bu leen leen woon ginnaaw mukk bu leen daw mukk ne nag képp koo xam ne nag euh, daw nga te sa daw yooyee daw ngir wane woo ginnaaw ngir euh, defar waat ba jekk ngir mën a songu si waat wala ngay euh, dugg ci meneen mbooloo moo xam ne dañ lay yokk doole Euh, ngir nga mën a gën a jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoo weddi suñu borom subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne daw nga te ñaar yooyu benn taxu ci daw day bu boobaa nee na na nga xam ne euh, euh, yaa ngi indi li nga xam ne mooy merum suñu borom te ëllëg lay sa lay sa fay rek mooy jahannama mooy sawaraas jahannam kon loolu liñ ciy dégge mooy nit ki su taxawee di défendre l'islam di xeexal lislaam ak lu mu laaj bu laajee bàkkanam sax daf ko war a joxe waaye lépp loo xam ne laaj na ko rek daf ko war a joxe ngir lan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ñu sàkk moom moo ñu andil lislaam jooje ñu war koo sàmm te sàmm ga bu laajee ay bakkan euh, euh, dañu ko war a joxe yonente bi sallallahu di wax ci xadisu ashabul mubiqaat muy juróom-ñaari bàkkaar yu màgg yooyu ba mu lim lima na ca ku daw ci bisub xare maanaam koo xam ne jullit ñi dañoo sàppe ba taxaw ngir jàkkaarloo ak nooni lislaam yi yow nga génn daw wala nga génn sàppe googa dem di defi leneen kon yooyu yëpp ay bàkkaar la yoo xam ne jullit bi war na ko moytandiku war naa moytandiku di ko def ngir lan ngir suñu borom subhanahu wa taala daf koy eh, daf koy daf koy aaye daf koy aaye kon loolu muy daw ci bisub xare wala daw ci bi nga xamee ne jullit ñi dañuy jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy weddi suñu borom ca ba xare eh, di am loola itam dafa doonoon loo xam ne su ñaar yee nga xam ne moom la ñu tudd ca aaye ba taxut bu boobaa loolo day eh, war ci ab jullit mu moytandiku ko bu baax a baax a baax a baax mu ne salisuha ñetteel ba ifsaadu maalil muslimi mooy yàq alali jullit rabiuha ñeenteel ba tarku salaati mooy bàyyi julli faalami nan ko xam ne na ñetteel ba ci bàkkaar yi nga xam ne dafa daj kàpp aw yaram mooy yàq li nga xam ne mooy alali jullit ndax ab jullit dafa am àq ci ñu sàmmal ko alalam ab jullit dafa am àq ci ñu sàmmal ko alalam waaye suñu borom subhanahu wa taala ci boppam dafa bañ li nga xam ne moo di ak yàq kon nit ki warul yàq alali moroomum jullitam waaye nag war na koo sàmmal ndax suñu borom subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo euh, moo ko bind waaye bi mu ko bindee ba pare euh, la nga xam ne moom la ko xéewale dafa def ay àq ci seen diggante te àq yooyu nga war koo sàmm kon bu fekkee ne dafa am alal bokk na ci àqi alal ja ab jullit euh, nga sàmmal ko alalam moo tax eh, suñu borom di wax ne innama jazaau allazina yuxaaribuuna allaha wa rasulahu wa yas'awna fi l ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjulahum min xilaafin aw yunfaw min al ard ñi nga xam ne ñooy eh, eh, déclaré suñu borom subhanahu wa taala guerre ak yonentam te ñuy dox ci kaw suuf si di yàq suuf si rek moo leen tax a jóg di Euh, yàq lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle ngir ñu war koo sàmm ci kaw suuf nee na ñooñu de seenu fay mooy ray rek lañ leen war a def wala ñu salbu leen muy ñu pendre leen wala ñu dagg seeni tànk ak seeni loxo ci ak juuyaloo euh, waaye euh, ñooñee la nga xam ne mooy seenu fay rek mooy mbugal mu tara taratar moo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dina leen ko teg kon yàq alali jullit bokkut ci ak jullit waaye bokkut itam ci ak jikko ju rafet waaye ci ak soxor ci la gën a jëm te soxor ab jullit waru koo def moo tax yonente bi ne bépp jullit rek araam na ci moom muy yàq alali moroomum jullitam wala muy e, gàkkal ab deram wala sax mu koy rey moo tax mu ne kullul muslimi alal muslimi xaraamun dammuhu wa maaluhu wairduhu waxaat ci beneen xadis ne laa yaxillu limri in min maali axiihi illa ma ataahu an du dagan ci benn waay du dagan ci kenn nit du dagan ci benn doomu aadama euh, jenn alal joo xam ne daf ko jële ci mbokkam jullitam wala mbokkum doomu aadamaam te joxu ko ko ci teey bakkanam saa boo xamee ne jël nga alali jàmbur ci lu dul teey bakkanam bu boobaa na nga xam ne alal jooja alal ju lewut la waaye yaa ngi yàq li nga xam ne moo di alal yi euh, jullit boobu nga xam ne moom nga teg loolu kon loolu nag mën naa doon loo xam ne mën naa doon loo xam ne euh, sàcc la mën naa doon agré agressé mën naa doon itam euh, jël jullit bi teg alalam nga làng ak moom war ko koo sàmmal bàyyi bañ yàq ko yooyu yëpp ab jullit waru koo seetaan waaye yooyu yëpp dafa araam ci ab jullit mu koy mu koy def ñeenteel ba mooy e, tarku salaat tarku salaat yi mooy bàyyi julli bàyyi julli e, bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne mooy bàkkaar yi gën a màgg itam ci bàkkaar yi nga xam ne e, mbooleem yaram wi day ñooy bokk bàkkaar bi nga xam ne cër bii du ko jagoo bàyyi beneen cër waaye cër yëpp ñoom ñoo ci ànd Euh, ca bàkkaar boobee ndax julli dafa doon ponk lislaam bu màgg a màgg boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne yonente bi mi ngi wax ci xadis nee na bi mu taxawalee lislaam ba pare bi mu waxee euh, li nga xam ne moo jiitu ca xadis boobu muy seede ñaari baati seede yi la mu joteg mooy taxawal julli kon taxawal julli euh, mbir la mu ama am solo moo xam ne mën nañoo wax ne moom la ñuy xàmmee ab jullit ak kurut ab jullit kurut kurut ab jullit akub jullit lañ leen di xàmmee lay teqale seen diggante mooy taxawal gi nga xam ne moom lañuy taxawal julli kon weddi ko nag moom julli te weddi ga tay rek moo tax nga weddi ko waaye gëm nga ne moom lu war la walla nga weddi ko rek te weddi ko rek moo la tax a jóg ngir ak ak kéefar boobaa loola nag loola la nga xam ne moo ca ay àtte lépp sëriñ bi radiyallahu anhu leeralal ko ci tasawudu sigaar euh, kon képp koo xam ne dellu nga foofa di nga euh, tegaar sa loxo ca la nga xam ne mooy àtte yooyu moo tax bi ne euh, rasul amri al islaam wa umuduhu assalaat yonente bi ne na mbir yëpp seen bopp mooy islaam waaye ndiggul mbir yëpp nag moo di ak julli kon euh, ndigg nag doon na loo xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama bi kon bu boobaa dañuy xam ne julli moom lu mënta ñàkk la ci képp koo xam ne day tuddoone ne ab jullit la waaye mooy li nga xam ne mooy euh, tàqale diggante ki nga xam ne dafa weddi suñu borom subhanahu wa taala ak ki nga xam ne moo ko gëm ndax yonente bi dafa wax ne al ahdu allazi baynana wa baynahum assalaatu fa man tarakaha faqad kafar euh, li nga xam ne mooy li ñu mën a teqale ak ñoom suñu kóllëre suñu diggante ak ñoom muy ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla julli dong la képp koo xam ne nag bàyyi nga ko kon mën nañ laa limaale ca ñi nga xam ne ñoo weddi suñu borom subhaanahu wa taala julli nag doon lu ama am solo loo xam ne euh, euh, bi nga xamee ne seydna ibrahim dem na euh, màkka di fa sanci te jamono jooja dara amu fa ba muy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lam ko jëkk ñaan dane ko Euh, dëkk naa ci joor boo xam ne dëkk naa ci gott boo xam ne amul lenn waaye ngir ñu mën a taxawal julli defal ñu nangam ak nangam kon waxu ko ñaanu ko alal ñaanu ko luñ dunde waaye dane ko ngir ñu mën a taxawal julli kon loolu li muy tegtale mooy am solo goo xam ne julli am na ko solo waaye euh, fonk goo xam ne jullit bi war na ko fonk li nga xam ne moo di euh, julli kon bàyyi julli moomu dafa bokk ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne mbooleem yaram wi ñooy ñi nga xam ne ñoo koy def te it euh, ku ne euh, war naa sàmmonte ak euh, farata jooju muy faratay julli waaye di ko joxe kem ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala santaane kon foofu la ñuy teg suñu loxo di tuub bu baax te jéggulu di wax ne in uridu illa al islaaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala